mbokki Sénégal maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen xamal ne loi bi ñu fi indi te mu nekk amnistie te li ko waral ak li ko lal yépp du début à la fin réconciliation nationale nañu fexe juboo ànd nekk benn raxas xol yi am na solo leneen li ci topp encore monsieur le président makisal moom mi nga xam ne dafa toog dialogue assumer sa responsabilité yi daa bëgg ñëpp juboo te li ko desal fii ci bopp réew mi bareetul mais mu war a dem di xalaat askan Sénégal ku ñu war a jaajëfal loi amnistie bii am na ñuy jëloon kàddune ñu ngi ciy laxas leneen ak leneen merci à Macky Sall di indi loi amnistie di ñu ñuy jéggalante suñu biir réconciliation national problème budget problème finance zéro dara bokku loolu am solo la ci biir réew te te yàlla dogal mu gouverner depuis 2012 lu bëri am fii chaque année état du Sénégal ci coobare suñu borom ak ndigalam di gérer les milliards de ce pays lu ñuy ku ci yëkkati kàddu ñenn ñi di wax pour bëgg leen ñu gis leen ak télé yi ak caméra yi sàcc fii dugg na fi génn fii mu bàyyi quelque que soit le chef de qui va venir après lui xool li nga xam ne les finance publiques de ce pays naka la ak comment ça s'est loolu aussi am na solo trop ci ci ci loi d'amnistie bi en tout cas bandiraɓe mi salmini on mi juurima on mboɗo yiɗi kettoɗon oɗo luwa kaalateɗo ma wonno nanirɗon no on paamirani kono gande ko woni anni makko kanko mawɗo leydi ndi makkisal ko yo yimɓe ɓe jarlodir jaafodira gila omo ɗo o yahani omo heedi d'abord e hoore leydi ndi ko adinomo yaha yimɓe ɓe dokkodiri juulɗe jarlodira jaafodira mboɗo sikki noon juulɗo so wi yo yimɓe jarlodir jaafodir o haalani ko boni e ko paami ɗum noon yo aduno wattu heen hakkille kadi yimɓe ɓe paama won haalnooɓe mbi loi amnistie o ko woni président 2012 faade jooni jawdi ñaamaandi ko feewna ko waɗa budget leydi ndi ɗum naanna kay loi amnistie mbaɗaɗo o ene moƴƴi yimɓe ɓe paama ɗum probléme uji noon waɗi war hooreeji waɗi maayɓe waɗi gaañiɓe waɗi boniraaɓe e gooto fof ɓernde mum wonko woni heen ko tunmi walla ko mettini o waɗa loi damnesti woote yimɓe ɓe mbawa yarrodirɗe jafodira sénégal kontina o ɗacca ɗo leydi gonde jaam ɗum ko omo toppiti leydi ndi nde woni ɗo nde omo yiɗi kadi leydi ndi kontina e yaade jama cellal kisal caggal makko kanko mawɗo leydi ndi président makky ɗum waɗi min farɓa ngom mboɗo waɗi fiére e lamtoro makky no feewi e golle mum e jikku mum heddi ko noon euh, dafa am loo xam ne ne comme am naa tuuti occasion du ma ko raté demoon naa ci émission Maimouna Ndour fay jël fa kàddu défendre cette loi d'amnistie ñu indi ko fii ci assemblée nationale ma ko war a voté ñi ci jëloon kàddu di mon ami Clédor tontu na mon ami Dambou tontu na na leer na nag Dambou nee na xamul sama numéro oui xamul sama numéro mais xam na ma te loolu dinaa ko leeral ba mu leer nañ bi ñu demee dugg ci biir palais bi bunt bu ndaw bu ñu génn xamul li tax ma jaarloo ko foofu man xam naa man li tax ma jaarloo ko foofu yëf yi dina leer naa ko wan ne fa laa bokk fi ma ko xamu fo maa ko gën miin moom ak ñu mu àndal kon nag wax bi dina leer ba nga xam ne ne yaakaar naa loolu su leeree ba nañ dootul jël kàddu wax ci kanam askan bi ak nu mu bare wax wax suboo wax ngoon wax guddi wax bëccëg ñun ñi géwél yi sax bareetuñu wax géwél ñi nga géwél yi sax bareetuñu wax mais su ma paree ak ñoom dàmm na ñooy. merci. Chers collègues, la parole est à notre collègue sanu euh, Sanou John, suivi de Ahmed dara